ak yonent yëpp dana ñëw ci biir téere bi waaye yaari ci dañuy gën a siiw mooy alquran ak furqaan quran mi ngi bàyyi ko ci xaru jiis bi ci di ak boole furqaan mi ngi bàyyi ko ci farqu jiis bi ak safale ndax xam-xam yëpp li ñuy bari bari yëpp ci ñaari baat yooyu rek lay ak farqu jaam xolam war naa ci yàlla ba du geesoo lenn lu dul yàlla gannaaw loolu war naa teqale yàlla ak pour def li ko yàlla digal bàyyi li ko yàlla tere moo tax de turu alquran yi gën a siiw di ñëw ni quran bàyyi ko ci xar uji jiri jamoo di ñëw di quran bàyyi ko ci far uji nga xam ne mooy firi ak tasala rek alquran nag mooy téere bi nga xam ne duumam duum la gu dox suñu digganteel suñu borom benn cat ba ñun ci loxol yàlla bu mag ma benn cat bi ñun ci loxol ñun jaam yi rek lépp loo xam ne moom lañu yàlla digal wax na ko ci téere bi lépp lum ñuy teral wax na ko ci bi lépp lum ñuy fayee ci bu ñu defee lam wax nañu ko ci téere bi lu muy fayee ña ba a def lam diglee ak ña def lam tere wax na ko ci téere bi rek bayiwul dara ku ko xatee daal jubal nga ku ci jàpp xaw nga ci yoonu njub nekk li nañu xabaar yi ñu jëkkoon ak xate si diggante ak li nga xam ne mooy dikk ci gannaaw bu dina jeexee lépp alquran jural na ko téere la boo xam ne mu ngi mel ni la boo xam ne buura bi yëpp moo ko bind jëm ci yëpp de téere la bon boo xam ne ku nekk war na koo dégg de ñi nga xam ne dégg nañu waxe arab ko jàngee danañ bari ci téere bi nam ma ku dégg waxu arab war ngaa bëree bañ nekk la ko ci sa làkk de mu ngi mel ni chef gouvernement fu mu bindoon tey leetar ci làkk woo xam ne dégguloo ko doo nelaw mukk te gisoo ko ko mën a jàng ba mu jàngal la ko ba nga xam li ca nekk rek téere bii nag moom la yàlla bind jëm ci bépp jaam war nag ku nekk war naa déglu li nga xam ne moom la làmboo rek fànn bu nekk nag am na xaddu xaddu fànn bi nga xam ne moom lañ jublu ji nag mooy xam-xam boo xam ne ci la ñuy xamee maanaam waxu yàlla ji te na ko yonent firee woon ak rasixoona fil ilmi ni ñu ko firee ne alquran kenn sañ koo firi ci sa pexe koy firi ci xel yonent la yàlla ci yonent bi la ko yàlla wàcce woon moom la sant na la ko bidanan yëpp yonent firi na ko la ca tegu saawee firi nañ ko raasixoon fi la am ñu jiite woon ñoom it firi nañ ko ñett yi la ko ñooñu firee woon loolu rek mooy firi alquran waaye kenn sañ nga firi alquran ci sa pexem bopp ci firi alquran ci sa pexem bopp na nga wàcc sa sa place ci safara yonent wax na ko sallallahu alayhi wa sallam li nga xam nag ne li ñu jëkkoon noonu lañ ko firee woon loolu moo tax ñuy jàng xam-xam ba mën a dégg waxi arab ndax téere yi yu jëkk yëpp yàlla wàcce na téeméeri ak yeneen ci téere juróom fukki téere ñu ngi ko wàcce ci Siisa ñett fukki téere ñu ngi ko wàcce ci Idris wàcce nañ fukki téere ci Ibrahim wàcce fukki téere ci Muusa lu jëkk Tawreet téeméeri yaangoo ñu wàcce nag Tawreet ak Linjiil ak Zaboor ak Furqaan muy téeméeri téere ak ñeneen ci téere mboolem téere yooyu yëpp li ci nekkoon yàlla boole na ko ci ñenante yi mboolem li nekkoon ci ñenante yi yàlla boole na ko ci benn bi benn bi mooy alquran benn bi li ci nekk yëpp kat yàlla boole na ko ci saaru njëkk yi nga xam ne mooy faatihatul kitaab bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee léegi incha allah kon nag lu ko mooy li gën a war parce que nag mooy fànn yi gën a ci fànn xam-xam ndax xam-xam bu nekk. dara nga am ñu ngi aju ca la muy xamle alquran nag ak firim alquran jëm yàlla jëlee ñuy xamle te jëm yàlla jëm moo gën lu nekk moo tax ñu gën lu nekk tey waa xateem farlu kifaaya la réew war na am waaw ku mën a firi alquran waaw doon dégg ko su fekkee ni xamut ci réew mi ñëpp bokk nañ bakkaat su fekkee am na kenn ku ko mën waaw wàcc nañu ko def rek waaw farlu waaw kifaaya la rek ku ko tëral mooy yonent bi ak raasi ko rafetal mi ngi bàyyi lakk yaram yi tam yi nga xam ne waaw ñooñu ñooñu jiitoon ci la ñu xamee ci biir alquran la alquran mooy ñanam ci xaaj la loo xam ne muhkam la ak loo xam ne mutashaabih la ne waaw loo xam ne muhkam la ñaari xaaj la loo xam ne dafa leer nañ ba nga xam ne képp ku dégg yaram rek boo ko déggee daal di xam lu mu wax ni ci qul wala ahadun kooku moom sax wu firilu pour ku dégg wala ahadun rek da nga xam lu mu tekki xam ne dafa ne rek yàlla kenn la kooku moom sax la wut jàng waaw ak loo xam nag ne bu mu dégg yaram bu baax man ko xam mooy li gën a bari ci laay ak loo xam nag ne soxla na nga xam fànn yëpp xam waaw naw waaw xam balaxa waaw ak badoo waaw sa ko mën a xam de ak wax yaaram yëpp nga soog a mën a xam laay ci def la nag moom lënt la nga xam ne kenn xamu ko lu mooy ko na fi leen nii lenn la itam lënt la kenn xamu ko yàlla nga xam bëgg a firil moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit boo xam ne jàng na alquran lépp lu mu wattu ci alquran rek lu mu mën a day noonu la këram bi koyee ca aljanna dañ lay wax rek jàngal loo wattu ci alquran rek laay joo jàng rek yéeg iskale iskale bu ne day diggante ci lay asamaan laay joo jàng rek yéeg iskale loo wattu ci alquran rek foofu la fa koyaayu tëddinam boo wattu ci yëpp dem ca kër ga gën a koyee ma ne ku jàng alxuraan benn xaraf yàlla dana la jël bindal ci fukki yiw yiw bu nekk mu war baa dinaa lu ci biitam faral la ca fukki bàkkaar te waxuma ne alif laam miim xaraf la déedéet damaa wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la ñett fukki yiw ngoog waaw xaar yoo xam ne ñett ñetti xaraf ngoog bu ci nekk ñu dina la ca fukki yiw muy ñett fukki dana nag noo gën a te jàng alquran alquran gi ne wàcce nañ ba ci bi ci ak ñaar fukki waxat ak ñett ndax ñu ngi ko yónnee ci Makka mu sax ca Makka fukki at ak a génn fa fukki ñaar fukki at ak ñett la am di wàcc ci xeer yi di yonent yi ci kaan bay na leen ci saaba yi ñoo xam ne wattu na alquran lépp ñu bëri ci saaba yi lañ ñi wattu nañ benn xaaj ñi wattu nañ ku ko xaaj ñetti xaaj benn bi Omar ibn Xataab Baqara ak Ali Imran la mu taloon yéen ci génn guddaa dina waaye jëttam ñi mu xamoon yëpp daf leen a sadaxa ñi kontaan ci ñaari saaba yooyu mu wattu gannaaw ga bëri na ba wattu alquran lépp Sayyidina Ali jot gën a wattu alquran ci dundam yonent ndax jihaad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da yonent bi ne àdduna waaw ba watoo alxuraan si ba génn rek fee waaw alxuraan jëlee képp koo xam ne jàng nga ko lépp loo amoon ci bàkkaar yàlla def la koy baal ko am sa doom jëmbale ko ci jàng mu jàng alxuraan bu ne baar araf bu jëkk ci téere bi ñu baal ko moom doom bi baal ndeyam ak baayam baal sëriñ bi koy jàngal baal ndeyam ak baayam ci araf bu jëkk boo loo xam su tegee araf yu bëri ay yu bëri saa yu bëri loo xam nag soo xamee wattu na soo taal Alxuraan nag dana rambu juróom-ñaar fukki ci kër baayam ñu war na dem safara ak juróom-ñaar fukki ci kër ndeyam ñu war na dem safara léegi bi nag bu ñu wax nga ne nii sëriñ yi xam duñ jàng ñu tàmbali a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim a'uuzu dana ma muslu a'uuzu dana ma yéedu a'uuzu dana ma xattaliku billaahi ci yàlla mina shaytaani ci shaytaani ar-rajiim kadi kuñ dàq de maa ngi muslu yàlla maa ngi muslu ci yàlla mu màgg mi ñu musal ma ci seytaane suñ dàq mu rek ñu ñu tumati ci baa téere bi képp ku bëgg a dugg ci téere buur a nangu am mën a day doo sañ ñëw mukk dal di dugg laa bu dëgg nga diisoo bañ leen a duggal doo bëggee jàng alxuraan nag mel na ni yaa ngi bëgg a ci téere wax ak yàlla moo tax doo ko sañ lu may bëgg nga fëggee buntu ba laaj ndigal fëgg buntam yàlla laaj ko ndigal ci dugg ci téereem nag mooy baatab a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yonent na ne ni la ma ko Jibril waxee jëlee ko ca al euh, jëlee ko ca àll wa jëlee maafoos mu jëlee ko ca àll wa mu jëlee ko ca rabu nasati wa tabaraka wa taala a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yàtt tëdd ñëw na ci alquran a'uuzu billahi samil alim mina shaytaani rajiim a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa samil alim waaye tëdd ji gën a yëpp waaw ba moom la ñuy jàngee mooy a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim rek moom la yàlla wax ne waaw فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فبدأ جعل القرآن بالتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mooy maa ngi mucc ci yàlla ci seytaane suñ dàq ci booy wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم nag xay xay àddina ñetti xaaj la xay yoo xam ne ñu ngi aju ci sa diine daf lay defarloo nga xam ne dafay waral nga taxaw di la ci àllaaxira ak xay woo xam ne ci sa yaram lay wàcce ak xay woo xam ne di ci diine du ci yaram lu ci nekk ci ñetti xaaj yi soo koy seet amul dayo xay yoo xam ne ci diine lay dellu te doo gëm yàlla na mu ware wala jëf yoo xam ne jëfi mooy yàlla la nga xam ne dafa lay ci sa diine amul dayo bëri dem na dayo xay yi ci yaram ñu ci feebar ak lompoñ ak laggee lépp moom it aw na am dayo xay woo xam nag ne du ci sa diine du ci sa yaram nit la la yàlla may ci àddina ci doom xalal ak lépp lum la jox loolu itam xay mën na caa wàcce yi nag war ngaa teewlu ne yaa xay yi xay wuy lor ak xay woo xam ne dafay lor lépp lu la yàlla jox rek benn taalibe mas na di sakku xam-xam ba am fa at yu bari di dem ci fóode di jàng ba wattu yonent bi ne hadis ci moom sàggu ko nag ne ko maa ngi ñibbi mu ne ko ma wax la nag baax boo xam ne moo ëpp njëriñ mboolem luñ ci wattu ci xam-xam mu ne ko loolu lan la mu ne ko ndax seytaane am na ci seen réew mu ne ko waaw waaw mu ne ko ndax dana leen di jax-jaxal mu ne waaw waaw mu ne ko fu leen seytaane jax-jaxalee nu ngeen di def mu ne ko ñu jañ ko mu ne bu dee see mu ne ko ñu jéem koo jañ mu ne ko mënu leen loolu mu ne ko seytaane bu la jax-jaxalee mën la ko jëñal sa bopp melal ni gan bu dugg ci kër xajab borom kër ga baaw ko bëgg koo song su bëggee mucc ca xaj ba dafay làq ca borom kër ga borom kër ga moom su jaajëf xajam rek waaw mu xam fu muy yem waaye soo bëggee songo xaj mën naa gaañ la wala mu xott fay malaan de waaw saytaane yi sa xajam yàlla su la jax jaxalee bul jëkk ci jeneen seen moom làqul ci boromam rek nee la amatu billahi mina saytaane rek ni kon yàlla dox ba digganteen moom de jax jaxali saytaane nag laaj nañ ko Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne saj di dugg ci néeg bu dara ne ko dégg xol boo xam ne saytaane dina ko dugg di jax-jaxal rek kooku bu laajte ci gëm yàlla la ndax ci gëmul yàlla saytaane amul ci moom soxla ñu gëmul yàlla ñooñu saytaane pare na ci ñoom ba noppi ñu gëm yàlla tey ñooñu ñu jéem a xeexal pour yàqal leen tax na ba képp ku yam jax-jaxal ci sa xol wala ngay jamat ci say jaamu yàlla rek na nga xam ne waaw ku gëm yàlla nga def yonent bi mas naa génn di dem ci jàkkaam fekk di taxaw ci buntu ba mu ne ko noonu yàlla mi looy def ci sama yoon yi mu ne ko yàlla ma yabal pour nga laaj ma mu ne ko ma laaj la ne ko lu tax ngay tere sama sama xeet lu tax nga tere nga di leen lu tax nga di leen tere ñuy dem ci julli mbooloo mu ne ko suñu jëlee dem ci julli mbooloo damay xopp sàngar woo xam ne daf may togg ba ma ñor du ñëw mukk fee tasaaro wuñ bokk nañu di jëlee gam mu ne ko lu tax waaw nga di leen waa xaaye koor mu ne ko su koor ñëwee dañ may seen seen suma dootuma génn ci kaso ba ba weeru koor yi waaw moo tax waaw moo tax ma bañu koor mu ne ko lu tax nga dina la aaye sarax mu ne ko suñu bëggee génne sarax dañu tab fii teg ko ci sama bopp di ma fii waaw pour mu bañ a dox diggante nit daal sarax pour mu bëgg a joxe dafa sarax tey dugg ca loxo nit ci ma ñu soog a teg di ci ci sama yaram mu ne ko lu tere nga di lu tax nga di leen tere jàng alxuraan mu ne ko suñu toogee di jàng alxuraan damay seey ba mel ni kuréem boo xam ne dañ ko seeyal ci safara waaw fee ñu ngi jàng alxuraan rek ci loolu laa nekk ba ba nga xam ne su jàng nañ bàyyi nañ jàng alxuraan mu ne ko maa ngi lay laaj waaw ana koo gën a bëgg ci nit ñi mu ne ko nit ku nay te xañaan te tër te mbëru kooku daal moom su ma ko xamee dañ koy daal di far rek muy saytaan yi buur la ci ñun waaw kooku moom duñ jéem a tee ut ci moom dara moom dañ koy fal rek muy tali ci ñun nit ku boole nay waaw ak tër ak xañaan ak réew kooku moom saytaan ci boppam la saytaan fatal na ci moom moom ama si billaahi mi ne saytaan rajo billaahi allahu alam la ca màggal yàlla mi nga xam ne mooy war ji xam te moo doylu walis lépp lu dul moom te ku dul moom xaajo nga jëm ci moom saytaane ni ñu bàyyi ko ci satana bii firi sori ndax waaw dafa nekkoon ci téyeb yàlla ba ñu daq ko soril ko dafa nekkoon ci aljanna ñu daq ko soril ko rajim yi mooy kuy daq mooy ci jàmm waaw naka la xale di ko ci téere bi ne a'uuzu billaahi mina saytaani rajiim jumla jooju mooy bopp téere bi sooratu faatihatul kitaab saaru faatiha téere bi ci gën a téere bi faatihatul kitaab ndax moom la yàlla jëkk a wàcce wala moom la yàlla jëkk a bind ci lawil mahfuuz faatee téere bi turam la danañ ko wax itam ummul quraan ak ummul kitaabi ndax mooy ndeyu alquran danañ ko wax sabal masaani juróom-yaari tagg yàlla yi wala juróom-yaari ñaareel yi ndax faatee juróom-yaari aaya la lu tax ñu tuddee ko sabal masaani lépp dañoo ñu doo da ngay wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم baat yëpp dañ leen a ñaareel wala li nga xam ne dañ koy baamu ci julli gu nekk wala dafa wàcc ñaari yoon Faatiha moo jëkk a wàcc wàcc na ca Makka wàcc na ca Madina itam ba nga xam ne ngay war a julli ndax julli mën dañu ci mooy Faatiha moo tax waaw ñu tuddee ko sabal masaani ñu nañ ko itam sant ji juróom koom ndax yonent na ne yàlla jox na ma saaroo xam ne am koom la mu ngi ko jëlee ci gannaaw xaras waaw dañ ko tuddee asaasu bi firi fondement danañ ko tuddee sifaaw yi firi saafara ndax yonent na saafara na ci jëpp jàngoro lu mooy saam saam nag moo di dee dee moom amul jàngoro koo pootu dee kooku moom amul docteur amul ñaan kenn mënu koo faj waaye jëpp feebar yoo xam ne du feebari dee fatihatul kitaab mën na ko asan loolu fatimatu doon yonent dafa xoppoon bay ragal ne dana dee jibril wàcce fekk yonent ngi jàqaloon mu ne ko loog yow mu ne ko asan dafa xopp mu ne ko seetal saar yoo xam ne arafu faa nekku ci nga tafli ko ci ndox waaw rek ñu salbu ko ci mu ci mu daal di jàng fa fatiha ci ndox ñu sange ko xasan mu ko moo tax na ci jëpp jàngoro lu mooy ko itam ruqayatu gi si mocc ci jaan ku jaan matt daal waaw soo jàngee fatiha waaw soo jàngee faatiha ci moom jaan ja wàcc saaba yonent yi lañ mas a tukki ci genn gàdd fekk buur ba waaw ñu ñaan ko reer ne ko na leen ganale mu bañ leen a ganale te jaan matt ko bañ ragal ne dana dee ñu ñëw ci saaba leen ndax kenn ci yéen amul lu gëb jaan kenn waaye ne man de am naa lu gëb jaan ñu ne ko ñëwal luggi suñ buur bi mu ne ah ñun dañ a ñaan a reer ngeen bañ kon nag may duma ko lugg lu may ba tax ma fayee de ñu jox ko gëb mooy téeméeri gàtt mu jàng faatiha tax li ko rek jaan ja wàcce ñu a di gàtt yi nag du ma ko sañ a jëriñoo lu ma dem ci yonent ba xam ma def sañ naa toom déet ba mu ñëwee nag li ko yonent yonent ne ko maa ngi dëkka ana ruqayatun ndax xamuloo ne faatiha lugg la ci jaan ne ko séddoo séddoo leen ko yaa ngi nga àndatoon te defal ma ci cët ñu séddoo noonu mu xam ne loolu waaw loolu leew na ko moo tax faatiha danañ ko tuddee way tam ruqayatu danañ ko tuddee waaqiyatu dafa koy musal jaamu waaw ci mbugalam jam bameel de danañ ko tuddee kaafiyatu kaafiyatu ji bi aji doy képp koo xam ne gëm nga yàlla wattu nga faatihatul kitaab am nga loola doy de ci biir islam de yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku yàlla may nga gëm yàlla wattu faatihatul kitaab nga defe ne yàlla may na benn jaam lu gën lam la may kon màggal nga lu yàlla xeeb te xeeb nga it lu yàlla màggal de moo tax ñu tuddee ko kaafiyatu ji bi aji doy téere bi doy na waaw pour pour lépp doy na pour àddina doy na pour xalaaka moom faatee téere bi juróom ñaari aaya la nag bismillahi rahmaani rahim itam fànn yëpp wax nañ ci li tax ñu tàmbalee téere yàlla bi bismillahi rahmaani rahim li tax ñu tàmbalee ko baa bañ ko tàmbalee lii ñi nga xam ne moo gën a màgg baa dafa suufeel boppam torox bi na ne ku toroxal boppam man la yëkkati ko ku yëkkati boppam itam faw ma toroxal ko baa mi nga xam ne moo suufeel boppam nag moo tax ñu def ko muy bopp téere te nga téere yëpp te baa itam dafa am jiite baa maanaam ñu ngi mel ni dafay wax bii ci man la nekke lépp lu nekk bii ci man lay nekke lépp lu fasoo nekk moo tax ñu ne baa ci xaq jaam bi ñu ngi mel ni cin waa ci xaq borom bi Seydina Ali ibn Abi Talib na ne su ma neexoon ma diital juróom-ñett ci ci gëlëm ci xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci tomb bi nekk ci ron baa rek gis ni gis ni bàyyi koy gis ni di bismillahi fa wax sama ci tudd tudd góor arrahmaani ka daaji xewal daa gaalakarar tàmbali nañ téere bi baa ab jar bu jar ci yàlla yi tàmbalee ismilaahi dañoo tàmbalee bismilaahi yonent na ne te tàmbalee wuñ ko bismillahi rahmaani rahim loolu lu dagg la lu jagg la lu ñàkk barke la lépp lu jaam di def daal war na koo tàmbalee bismillahi loolu moo tax yàlla tàmbalee téere bi bismillahi ngir jàngal ñu ñun ñu ko soxla bismillahi sa sama wax sama ci tuddi ci lu bóor lu ñu aju ci luñ xasaf luñ xasaf loolu nag way naaw wuute nañ ci def yoona nañ ci Allah kooku yoona nañ bismillah bu fekkee ni fin la la bés yi yoon a wax te mooy dingéer nga ne bismilaay dana ma jàng ci turu yàlla bu fekkee ni da ngay lekk boo ne bismilaay maanaam aakulu bismilaay maa ngi lekk ci turu yàlla day dugg ci sa kët boo ne bismilaay maanaam maa ngi dugg sama kët ci turu yàlla sooy xadu bismilaay fin yaa ngi xare ci lépp fin yaa ngi xare ko xare ci jëf bi nga xam ne moom la jàmbi jëf lépp looy def nag na nga tàmbalee bismilaay sooy war fa daawa neel bismillahi sooy wàcc neel bismillahi sooy dugg sa kër neel bismillahi sooy génn neel bismillahi sooy taal sa lamp neel bismillahi soo koy fay neel bismillahi sooy lekk neel bismillahi sooy naan neel bismillahi sooy hoddu neel bismillahi sooy hoddu sooy jigi sa ko daayit neel bismillahi sooy sëy neel bismillahi soo defee loolu seytaane doo am cët ci sa la ci la yàlla jox am na jaam boo xam ne dafa nekkoon lépp lu muy def rek ne bismillahi moromam jaamam lépp lu muy def du wax li ciy laayee seen yaari saytaan ay gisante saytaan fenn fi ñu ci suura suur de day bajje fenn fi lapp lapp lapp lapp bay bëgg a dee mu ne ko yow la la jot mu ne ko man maa ngi nekk ak waa yoo xam ne du sàggan lépp lu muy def rek ne bismilaaye su bëgg suy dugg ci këram ne bismilaaye ma def ko biti du ma sañ a dugg waaw suy lekk ne bismilaaye du ma mën a lekk ak moom mu lekk wàcc ma suy naan ne bismilaaye amul dara lu muy def daal sa waxu bismilaaye moo tax amu ci moom benn cër moo ma tax a yooyu nii kenn ka ne ko xuteeg man man sama waa ji du wax bismilaaye mukk moo tax bu di gërëm ma di ànd ak moom buy lekk ma lekk ak moom buy naan ma naan ak moom buy sol yére ma bokk ko moom buy dem ci jabaram ma bokk ko moom moo tax ma day nii moo tax ne waa lépp lu jaam di wax def rek dina wax bisimilah bisimilah ci jaam daal doy na walis bépp mbuus doy na walis waa gépp gàndaay ismu mi ngi bàyyi ko ci sumu ji jiri yëkkatiku wala mi ngi bàyyi ko ci sama ji jiri mandarga suñ ne mi ngi bàyyi ko ci sumu te loolu lañ di rëmbas waaw kon ci yàlla yi ay xalam lañ waaye du ay xalamaat waaw su fekkee nag ñu ne ñu bàyyi ko ci sama tuddi ci mandarga waaw loolu mooy njëram mutasila mais ci yàlla yi ay mandarga rek lañ ci yàlla foofu la ñun sunna ak ñun mutasila wuute xaat ñun sunna fas nañ ne yàlla mos la dañ di tudd mboolem tuddam yi meloo mboolem meloom yi ñun mutasila nag waaw ñoom dañoo réer ñu ne yàlla amu tooni tudd bam sàkk biñ di ndëfi amu buñ fàtte mbindeef yi nag ba mbindeef yi wutal ay tiit waa ak melo su mbindeef yi jeexee mu delloo di dootu xam si dootu xam melo waaw ñett yooyu waaw is mu ngi ko jële ci ji ji sudi yi nag ay xaaj lañ sudi yoo xam ne sudi jëmm ji lañ ak sudi yoo xam ne sudi melo yi la ak jëf yi sudi jëmm sudi jëmm ji yooyu sudi yaa sudi asmaa yi yooyu sudi nga xam ne bu teftale dara lu mooy jëmm yàlla ji ñu sudi demee allah al quddus al xaq yu demee noonu sudi yoo xam ne ñoo ci des nag ñoom nelaw yi la ñuy firi arrahmaan yi dafa yërëm waaw ñu tuddee ko yërmande ja xaaliq dafa bind ñu tuddee ko lam bind rabbu dafa moom ñu tuddee ko moomeel ga maliku dafay buur waaw ñu tuddee ko nguur ga yooyu tuddi ay melo lañu ak tuddi martaba lenn li ku nekk a la xam ne mooy tuddi cosaanam kooku mooy turam am na yeneen tudd nag yoo xam ne ay dara jaam ko jox ak ci la déyam mën nañ laa tuddee ba ci la toog sax mën naa mën naa nekk sa tur ba nga toogee borom kër gi mën naa nekk tur yooyu lépp ay tur yoo xam ne tey daraja la ñuy wane waaw tur yàlla yi noonu la mel tudd boppam yi nga xam nag ne moom moo mooy ci dem dëgg dëgg dëgg kooku moo di allah wute nañ ci ñu li tur la tur la woo xam ne waaw wuñ wuñ sant la du luy xare ci benn baat ñu ne déedéet mi ngi xare mi ngi xare ci baat li gën a mooy xarewut ci benn baat waaw tudd alam la rek te moo gën di alam ci alam yi ci seen jiw yi gannaaw muy sujura ca aljana ñu ne ko la yóbbu aljana mu ne li ma wax ci naaw ne allahu moo gën di alam ci mboolem alam yi ne loolu ko yóbbu aljana am na ñoo nag ñu xara ci aliha waaw ji si gëlëm na ndax xol yëpp gëlëm nañ sama gam ga xam na ñu ne mi ngi bàyyi ko waaw ci laaha xam na ñu ne mi ngi bàyyi ko ci waliha ji siri nani koy na mu ndax xol yëpp nani koy nañ waaw ngir topp ko yooyu yëpp wax yi nga xam ne dafay wane ne dañ koo xare ci baar yëpp di di yëpp di yëpp mooy ne ci la muy xarut xam la alam la ca jëmm ja nga xam ne war ji xam la te doy na wali ji moom soxla na jëm ci moom mooy def waaw te du jeex mukk ak xamam xamut ak tàmbaliku xamut jenn jamono joo xam ne yàlla mas na fee ñàkk nekk ak mu jëm xamut ak jeex séntu jenn jamono joo xam ne bu ñu faagee yàlla doo xam kooku mooy yàlla indi léegi moom rek jamono doo yàlla lu dul moom am na jamono ju mu ñàkkee am na jamono ju mu séntu mu ñàkkee moo tax dara mën da doon yàlla waaw lu mooy moom moomu rek te lépp loo jege nag moo la ko gën a jege te bët yi duñ ko gis kooku mooy ki nga xam ne moom lañ war a jaamu laaw moomu rahmaani mooy aju xewal yi ndax ñëpp ci àdduna yaa rahmatu yërmande lay firi yërmande mooy sew xol ngir ñëweti ci ci jaam su la loolu gaaree mën naa sàkku ci yow nga jox ko xewal soo yërëmee miskin bee sa xol sew loolu dana tax nga nga jox ko xewal de lépp ci nag boo xam ne jomb na ci yàlla suñ ko tuddee yàlla na nga rek xam na njël benn xam na mujj njël benn ci yàlla waaye mujj gën a dagan ci yàlla de teewa xol jomb ci yàlla ndax yàlla xamul sax xol waaye joxe teewa nag waaw kooku moom yàlla mën na koo melloo de moo tax de rahmaanu suñ ko firee aji yërëm yërëm jomb ci yàlla suñ ko de aji teewee waaw aji joxe teewal de te doon baala xaala moom rahmaan ndax jaam yëpp lay jox yërmande ci àddina am cëtya taa kenn du ko mooy ba tax mu dog yërmandeem ci yow kenn ko topp ba tax mu yokk sa yërmande yëpp la yemale fii ci àddina mooy rahmaanu dunya mbindeef yëpp moo leen di yërëm waa alaaxira nag ca lay fayee ñi nga xam ne ñoo ko doon topp waaye fii ci àddina moom am na wut kenn ak kenn ci koy topp ak ci koy moy ak ci ko gëm ak ci ko weddi yëpp yee xéewal nañu àddina yi ñoom jaamee ci xam yàlla na téeméeri yërmande juróom-ñeneen ci toog juróom yëpp ma ngi ko denc benn la indi ci àdduna lépp loolu ci xéwal yi àdduna ba àdduna sosoo ba léegi ci ba benn xaaj boobu rek la bàyyeekoo ci yërmaane léegi ci la binii ci seen bopp di yërëmante te wàcc di yërëm doomam te daa ba sàkk di yëkk di tànkam di dëgg doomam njële waaw daf ko yërëm benn xaajam yërmaane di ñëw ci àdduna nag su àdduna jeexee yàlla fab ko teg ko ca juróom-ñeneen fukk ak juróom-ñeneen fukk yam dencoon muy téeméer yu mat mu jagle ko nag ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon yàlla ñu ko yàlla boole bu keroog nag waaw la topp yàlla fayam di fa ko ñëw waaye fii ci àdduna moom àdduna moom ñëpp ko bokk ñeenti buuram sa moom àdduna ba mu daj amul frontière ñaar ñu jullit lañ ñaar ñu yéefar lañ ñaari jullit yi mooy Suleymaan ibnu Daawuda ak Zul moo di Namroos ak bokk nasar rek su fekkoon ni ku ko topp rek lay jox àddina waaw kon Namroos mi nga xam ne dafa weddi bay xootan yàlla waaw kon yàlla du ko jox moom àddina yëpp rek mooy ci yàlla yónni xam ne yëpp wax nañ ci xaw ma guddi naam de naw wax nañ waaw jumla ji ndax kubra la wala suxra jaar gi ndax fin la waaw wala lisin la nañ ko trit wax nañ ci waaw rahim rahmaani mi ngi bàyyi ci rahima waaw rahimu ji sirig room waaw ci lay ci lañ ko xare yàlla wax na ne waaw ab jagañaale waaw maa ngi ko xare ci waaw sama baatab sama tur jagañaale maanaam ku jokk bopp yàlla jokk la de yàlla ci boppam waaw moo lay dogal boppam de fukki xaraf la ak juróom-ñaant li sirru ci loolu bëkk néegi safara fukki la ñëw juróom-ñaant naka la xala ñëw te saaru mu def ci ala ati jàng fukki xaraf yi day juróom-ñaant juróom-ñaant téeméer fukki bëkk juróom-ñaant kenn du la ca mën a safara de bismillahi rahmaani rahim bismillahi mas naa wattu wattu boo xam ne daf ko bëgg a rey docteur yi faj faj li ko dee ci jamono Seydina Omar ibn Khattab mu dindi Seydina Omar ne ko ndax amuloo dara ba bopp bi métti Seydina Omar yónnee ko mbaxana su ko tegee ko bopp rek mu tedd saa yu mbaxana may tegee ko rek mu dellu fa mu newoon waa fatti mbaxana ma li ñu ko fekk bismillahi rahmaani rahim la Omar bind waaw dugal ko jëbi mbaxana ma bu ko tegee ci boppam rek mu wér saa yu mu ko jinnee rek waaw mu feebar ba dellu si aat bismillahi rahmaani rahim <clears throat> yonente tuddi yàlla ci nekk allahu bismillahi rahmaani rahim yetti tuddi yàlla yooyu tuddi yàlla na boppam ñetti junne tur junne malaayika yi rek a ko xam junne yonente yi rek a ko xam benn junne bi ñetti ci tawreet ñetti téeméeri tur a ci lindiin ñetti ci sabóor téeméeri tur ci def ñu juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yëpp ñëw na ci alquran ak benn biñ nëbb mu matali ko téeméer tur yooyu yëpp yàllaa ko tudd te yàlla lañ koy waxee te jàmm yàlla ji la su la neexee nga ne allah su la neexee nga ne rahman téefari nañ xamuñ rahman waaw ngi rëy bi namuñ xamuñ lu koy rahman maanaam kooku ci boppam rahman waaw moom la ñuy fakk fakk lu de xamuñ ko bismillahi rahmaani rahim mboot yu bëree ngi ci ci li mag ñooñ maxrib ci néeg ñaar téeméer ak ñaar fukk lañ ak ñaar fukk ak juróom benn ci li mag ñooñ penku juróom ñett téeméer juróom ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar mooy sirru boobu nga xam ne képp ku am xaajo jàng ko bismillahi rahmaani rahim yàlla fay xaajo ja dafa juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar amul xaaju jum bañ nag te turu yàlla yi nga xam ne ñooñu la saar dañu ko liggéey turu wu ne benn soxla rek nga ca mën a liggéey lu mooy basmala kooku moom di nga xamee ne mooy caabi mboolem téere yi moo tax moom mën nga caa ñaan waaw mboolem xaajo yi rek ndaw ba nag juróom benn fukk ak juróom benn la muy sirru bu yéemu daje tudd Allah ki nga ne juróom benn fukk la waa ak ak juróom benn arafi saa yi nag fukk ak juróom ñenent lay yonent na ne jëñ naa ci yàlla ma dégg naa ci jibril mu ne jëñ naa ci yàlla mu màgg ma dégg naa ci israfil mu ne jëñ naa ci yàlla dégg naa ci yàlla mu ne yàlla na ne jëñ naa ci sama màgg ak sama teraanga nekk jàng bismillahi rahmaani rahim jokkale ko faatihatul kitaab ci benn na ko noppi yéen ci malaaka yi seede leen ne baal naa ko mbooleemi bakkaaram nangul naa ko mbooleemi xiiwam te woowa lamiñ duma ko lakk mukk ci safara te danaa ko danaa ko xarfe aljana danaa ko musal ci mbugal danaa ko mën loo bés ba nga xamee ne ñëpp jàq na moo tax ba képp ci jàng faatihaatul kitaab waaw gën na nga jëkk nga wax bismillahi rahmaani rahim ci bopp bi ànd ak fuqaaw yi ñoom waaw wuute nañ ci baat boobu ndax ci saar wi la bokk am bokku ci ci alquran la bokk am bokku ci wuute boobu boo xam ne wuute bu nekk nit mën naa génn ca wuute ba lu muy boobu bu fekkee ni ci alxuraan la bokk bu ko ci génnee yëfar nga bu fekkee bokk waaye li mooy su ne xam ne ne la ci faatee ca saaru nam bi boobu kon bokkam ci alxuraan moom amul werante ndax nag xaaj la ci saar wu nekk am déedéet loolu lañu wute laaya la ci téere bi ñu di ko teg ci saar yi pour di ko xam ne fu saar ak fu saar xem ci faatee la bokkam bokkut ci faatee kooku yi wute nañ ci wute bu bari ndax xadis yo wax ne ku jàng faataatul kitaab ak ku jàng saaru alhamdulilahi rabbil alamina loolu nag dàqoonte wutal ne bismillahi rahmaani rahim ci la bokk ndax alhamdulilahi rabbil alamina ci du saar wa rek la laaj nañ yonent ne ko bismillahi rahmaani rahim lu mu doon mu ne tudd la ci tudd yàlla yi te kat ma xamal leen leen dara doxu diggante ak tudd yàlla wu mag yi ñu la bëggat lu mooy ni dox diggante weex weexaat bët ak ñuul ñuul ba loolu la bismillahi rahmaani rahim jege bismillahi laa xam ne moom lay aarifi na yëpp di yëngatu bëgg koo xam dara doxul seen diggante lu mooy di dox di weex weex a bët ak ñu ñuul ba bismillahi rahmaani rahim ci faatihatul kitaab ndax ci la bokk ndax bokku ca ña wax ne bokku ca ñu ngi laaye sakraar bi nga xam ne mooy ñëw ne rahmaani rahim su fekkoon ni bismillahi rahmaani rahim ci faatiha la bokk suñu daal di baamu rahmaani rahim léegi ci laaye di ci jëkk waaye fekk na faatihatul kitaab moom noonu la tëddee baat yëpp baatam yëpp dañ ko ñaareel ba ba ni mu jeexee bismillahi rahmaani alhamdu yàlla ne wax leen ma ne wax leen ma yéen jaami ne alhamdu xaaji cant yonent bi laa ji nak la ñaar yàlla xooloo lañ ci wax leen ne cant ñaan yàlla de yàlla man rabbil alamin kay aji kay moom jaami de yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yëpp alam bi yàlla tabbina ci baat ci baatam alam ci boppam jamono la aalamiina nag dañ ko jamoxaat jamu musakkari ngir mu baba xaal li yàlla am ci alam nag kenn xamul dayoom yàlla am na fukki alam ak juróom-ñett yoo xam ne addina ak alaxira benn la ca yàlla bind na ci mbindeef junne alam yoo xam ne juróom benn junne yëpp ñu ngi dëkk ci géej ñu ci def dëkk ci jéere jaww ji ak ci suufi juróom-ñaar ñu ne yonent bi ay mbindeefam ci suufi juróom-ñaar mu ne ay mbindeefa la fa ay doomu aadama lañu mu ne xamuñu sax ne yàlla bind na aadama iblis am na fa mu ne xamuñu sax ne yàlla bind na iblis di gën a bëri ci mbir mi nag ci géej gi la ko yàlla denc am na jën yoo xam ne rëy nañoo rëy rëy rëy de suñ ko tegoon fii bët mën na xool fa mu yem am na jën yu tuuta tuuta tuut ba suñ ko tegoon fii bët mënu koo gis ngir tuutam waaye lay woon bëri ci mbir mi ci géej mooy Suleymaan ibnu Daawuda su ko yàlla joxe àddina yëpp mu moom suuf lépp amut frontière moom jur gi moom njaaxale yi moom janaaw yi moom jinne yi saytaane yi door na gis nguuram bu rëy googu mu ne yàlla léegi daal dama bëgg nga farale maa sam bindee fi man ma di leen jox raf yow mu ne ko mënuloo ko mu ne ko benn at mu ne mënuloo ko mu ne weer mu ne mënuloo ko benn bés mu ne mënuloo ko mu ne ko malal leen boog benn taabal rek mu ne ko ay ca defal mooy jinneeg seytaane lépp lu mu xëy bu kenn liggéeyee fii ceeb yeneen ci weer lu may pare ñam rek ñu pareel fay ñam di pare di pare di pare ba nga xam ne dañ la lee ñam ya dem na ci téeméeri farfaq ak ñaar fukki farfaq farfaq bu ne ñetti ne yàlla xebalal say mbindeef na ñu ñëwaañ kenn jëm naa ay ci biir géej gi rek ñoom mar lépp ne ko ñetti lii laay lekk bët ci kat te tey yow lañ ma féetale ana ñaari xaaj yu ci def man daal tey bi ma féetee ci sa ngan daal daal ci ci nga laa yàlla Souleymane xam ne yàlla rek mën a gàddu ay mbindeefam loolu moo la wan bëri dina li ci biir géej ak dina li ci géej am ci yoo xam ne seen rayaa àgg na foofu ñoom ñëpp nag yàllaa leen moom moo tax de wax leen ne sant ñaan la yàlla mi nga xam ne moom moom mbindeef yooyu rek alhamdu juróomi xaraf la ci li ñu war ci def juróomi julli la boo waxee baataru alhamdu dana dana dañ ci am yoolab ci julli julli juróom alhamdulilah juróom ñetti xaraf la daraja aljanna juróom ñetti daraja la soo waxee ne alhamdulilah daañu la tànnaloo juróom ñetti daraja yi bu la ci neex nga dem dëkk ca alhamdu nag sant yàlla ñaari la mën nañ koo sant ngir ne la yu mag yi lamboo mën nañ koo yëpp xéewal yu bëri yi nga xam ne moo moom la maye de yëpp yëpp meloo na ko ci jëmmam ba noppi lépp looy gërëmee yàlla la ko defal kon kooku nga war a moo tax jaam bu nekk war na saa yu nekk muy wax alhamdulilahi rabbil alamin cant nag ñaari xaaj la cant ak mutlaq ak cant ak muqayyad Malik saafé yi dinañ ko Malik na ne cant ak mutlaq moo gën mais alhamdulilahi rek bañ ko àcc dara saafé yi ne cant ak muqayyad moo gën ndax moom rek a ñëw ci alxuraan koo gis alhamdulilah ci alxuraan alhamdulilah lafi lañ koy fekk alhamdulilah lafi hadana li hasa alhamdulilah lafi xalaqa alhamdulilah lafi asaba anal hasana alhamdulilah lafi sabaqana wadahu dem ci alxuraan yëpp dañ ko tënk ci xéewal ndax ñu ne bon nag boobu gën Malik ne mutlaq moo gën xaw ma ko ci gën a xam yàlla waaye rabbil alamin sax kenn ku ne cant gi xaar sant ñaan na yàlla lu tax mooy rabbil alamin ci téere bi ñu ngi ko tàmbalee fatiha fatiha ci kitaab nee naa leen téere yàlla yi wàcce yëpp te boole ko ci alquran alquran it boole nañ ko ci fatiha ci kitaab fatiha juróomi turu yàlla moo ci wàcc wax na lillahi laahoo ngoo di turu yàlla wax na rabbil alamin rabbee ngoo di turu yàlla wax na rahmaani muy turu yàlla rahim muy turu yàlla mu ne maliki yawmi diin maliki di tudd yàlla juróomi tudd yooyu wàcc ci alxuraan ñooy cosaan ci donc lislaam yi juróom de donc lislaam yi laa ilaha illallah moo ci jëkk laa allahu rek la tekki yaareel ba moo di julli juróom julli juróom rab bee ko takkale rab aji yar aji héenal ci yar lëf di ko yéenal ba mu baax loolu la julli mel ci lislaam yi jaam bi jaam boo xam ne fay wattu ay julleen julli gën a yar lislaam ba mu yéen li teg rahmaani rahmaani te teg la ci yërmaane foofu la koor génne yërëm ji la yërëmoon miskin ba di ko sabax yërëm yërmaane ji jëm na ci yow da nga ne yaa ngi mosal sa bopp ci jullit ci Zohor ba mu nekk ñetti ndax nga gën a mën a yërëm nit ki looloo tax ñu rey ni aji yërëm lay firi foofu la asaka jóge yërëm gën a yërëm nit ki moo tax nga fab xaaj ci sa alal jox ko bari ci yow mi diini foofu la aj bàyyi ko de ndax suurat koy jëm yàlla comme fa nga jaam yëpp ñu jëm ci benn pàcc ñu ngi ñu roog fa yàlla waaye jaam yëpp ñu dem yaa ñu ala ba jamaka de faatihatul kitaab alquran juróom ñu leen ci fànn xam-xam a ci nekk lépp ko li ci faateetul kitaab alquran benn ngay jàng laaya yi di tagg yàlla am na laaya yoo xam ne dañuy tagg borom bi bu baax wala muy saxal tawfiq wala muy saxal yërmandeem tële di gën a yërmandeem wala muy sëkku wala muy indi sariatu xate wala muy indi xaqiqatu baatin wala ñaan wala waade su tey ñu jëkk ña ak waade xam ne alquran yëpp noonu la day laay yi indi lii rek laa ma ne muy takk yàlla wala muy ko wéetal wala muy gën a yërmande wala muy sëkku wala muy yoonal wala muy indi xaqiqa wala muy ñaan alayhim qitaan ko xayril maxdubi alayhim wala daalliin waade ngo di façon jàng ci bi yëpp saaru gàtt ko tax yàlla ne wax leen ma ne alhamdulilah jërëjëf sant yonent bi la ilaha illa rabbil alamin kay moom bi leen arrahmani kare aji xewal mi naaw jaar yaa rey ni kare aji xewal bi daa jaalaat rek maliki yow mi diini kay buurab bi sa pay fa yàlla mi nga am ne dénkam yàlla moom rek ay doon buur dëgg dëggum yàlla rek ay buur waaye fii ne yàlla ci samp ay buur mu ne am na buur bu ko yaatee péncam yàlla nag bañ fang yëpp yàlla ne li ma ne mulkul kan la nguur ñaal tey kenn du tontu mu ne kuy puur tey kenn tontu ya tey nguur ñaal na yàlla rek ban li nga xamee ne mooy buur bët du set waaye nag bët du set am nañu bokk moom ci mu jàlle boppam def fa nga xam ne kenn du xëccoo moom mu ne maliki yow mi diini kay buurab dafa tey ba de ñëw la jaam war a ragale meram yàlla de meram gann buur rek ci àddina mën naa indi musiba moo xam ne ñëpp danañ ci jot geer yi am ci àddina yëpp benn buur ay mer rek daal geer fekk la ci am ci toftare ci musiba dem meram benn buur rek ci buuri àddina moo mën a indi musiba yi ñu xam ci àddina takkam takkam meram buur bi nga xam ne mooy buur a buur yëpp de yal nañu yàlla musal ci meram buur na dëgg-dëgg mooy yàlla buur bu ne itam daf laa jox melo ci meloom rek moo tax yonent ne ñett kenn du leen xoyofal lu mooy naate borom xam-xam ak buur bu jub ak mag ndax ñooñu ku ci ne yàlla daf ko xodd na la ciy meloom buur yàllaay buur ku da buur rek yàlla la jox meloom nga màggal ko ngir loola borom xam-xam yàlla rek ay borom xam-xam ku am xam-xam moo la xodd na la ci meloom mag itam yàlla la jox melaw mag woowu moo tax ba ñett ñu yonent ne naa fekk rek a ma ndaw bu teralee mag gis atam ya yàlla dana ba ca at yooya mu xebal su fa teral bay ko teraanga jooju mu teraloon ma de di nga xamee ne jaam bi tàmbali ne alhamdulilah yàlla ne sama jaam bi tagg na ma rabbil alamin ne sama jaam bi na ma rahmaani rahimi maliki yawmi diini mu ne sama jaam bi na ma léegi nag yow laay déglu léegi lépp rek ma jox la loolu ñu nag ci ñun naka bi way téeram way ko baj sab xolam ba ko waxal loo bëgg ma jox la ñunit yonent na ne yàlla na ne séddale naa kitaab sama diggante sama jaam bi ñaari xaaj ba ne alhamdulillahi rabbil alamin mu sama jaam bi tagg na ma rabbil alamina rahmaani rahim ma yawmi diin mu ne sama jaam bi màggal na ma tagg na ma mu ne iyyaka yow daal na'budu la ñuy jaamu mu lii moom sama diggante sama jaam bi la dox wa iyyaka yow daal nasta'inu la ñuy dimbali ko rek takk nga ko ba mu ne loo bëgg ma jox la loo laaj indi na yàlla nga jubal ñu sirata yoonal mustaqim aji jub ba mu ne laajal loo bëgg ma may la dañ ko ne yàlla ma may yoon yàlla ma may njub ndax loolu lay may tax jaar na yàlla rek moo tax saaru di ko tuddee saaru julli ndax yàlla na ne damaa seetlu julli sama diggante sama jaam bi ñaari xaaj ñaari xaaj bii ñu man la ñaan bii moom la ñaan njël jën bi yow jaam bi yaa yàlla nit ki na la laajal loo bëgg ma jox la nga yàlla ma jubal yoonu jub da nga julli juróomi julli rakka bu ci ne dañ mooy rek ñaan yàlla mu jubal la ndax jub mooy may jaam noflaay fii ci àddina moo koy may xéewal ci jaat bi moo ko koy may ëllëg ci àllaaxira bi njub nag ak li ñu ko mën a firee rek mooy topp ndigal bayi tere maqaam bu nekk am na kuy joxe ndigal boo toppee ndigal la rek jub la am na kuy tere boo tere rek jub la topp ndigal bayi tere daal mooy njub moo war diggante wàjjutam doomam wàjjutam moo war diggante jabar ak jëkkatam moo war diggante far ndag buuram moo war diggante jaam ak boromam rek moo war diggante taalib ak sëriñam boo xamee ne daal liñ lay digal yaa ngi koy topp rek yaa ngi ci yoonu njub iyaaka naabudu iyaaka yow yàlla daal naa lanuy jaamu jiital bii jiital ma xolam bii nii ak takk lay jëriñ maanaam du ma jaamu kenn lu ma yow loolu la jiital di jëriñ wa iyaaka yow daal nasta'iin lanuy dimbalikoo moom it da ngaa takk du ma dimbalikoo lu ma yàlla iyyaka na'budu foofu la julli mbooloo génn ci alxuraan nga xamee ne mbooloo mi dañoo war di julli moo tax baatam na'budu jow ñu tëgg ko ci tëgg ak mbooloo su fekkoon ku nekk fay julli moom rek kon tey ku nekk iyyaka na'budu lay wax iyyaka na'budu nag moo xam le sariyaatu wa iyyaka nasta'iin itam moo xam le xaqiqatu de li sa zaahir moom dafay gis ne nit yi jaamu borom bi loolu xaas yi bëgguñ loolu xaas yi nag ñoom ñoom mënuñoo jaamu de ñu ngi dimbali ko yàlla rek yàlla leen mën a dimbali ci jaamu bi dañ mën koo jaamu te loolu soriwul dara su fekkee yow jaam bi julli nga baax dal soo seetee la ci yàlla def doo gis dara loo def de julli balaa mën a wét nga laab laab man daa mel ni mooy ci man laa bind ndox yàlla sàkk ndox yàlla sàkkuloon ndox jàpp ci jëkk moo lay jëkkata boo ba noppi ci mën nga wét nga mën a ci xottu ci dural sa yaram li yàlla la ko jox ba nga mën a julli taxaw juru ko si jóor laaj na la ci kattan kattan lu xan ji rek a tax ko waaye soo lekkutoon doo ko mën ci la jox julleel kattan li ba noppi jox la wërsëg yi nga xam ne moom ngay wéyee mën am kattan loo jullee boo taxawee di julli julli di wét lu mu ci nga jàng alquran alquran di ko téere téere yàlla la di julli gaage daal di nga gis lekk yàlla def nga xam ne yow defuloo dara doo man lu may rek dellu ne ko yow laa mën a yow a def jaamu yàlla indi na yàlla nga jubal mu siraata yoon al mustaqim wala aji jub jub nag danañ ko firee ñaare firi ci alquran jub boo xam ne mooy dindi njub ci xolof kooku yàlla rek ko mën ak njub moo xam ne mooy tegtal jaam bi yoonu njub loolu yonent yi mën a ko di moo tax yàlla wax yonent ne ko innaka laa tahdi man ahbabta man laa jubal ki nga bëgg abi taalib la gënoon a bëgg abi taalib ko gënoon a bëgg moo ko gën a jariñ waaye dee na ci kéefar yàlla ne man laa jubal koo sopp man maa jubal ku ma sopp te mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da nga juble jëm ci jub nga xam ne ndigle mi yonent bi man moom wali wali man ko kóode ji man ko mooy tegtal jaam bi yoonu njub rek bu caawee baax na bu caaw ci yow wàcc nga njub ca xolob jaam ba nag kooku yàlla rek ko man danañu yàlla jubal ñu ñëpp siraatal lazina yoonu ñaaña anam tax tey nga aleen ci ñoom yàlla nag ma jubal yoonu njub yoonu njub mooy lan mooy yoonu ña nga ne xéewal nga leen ña nga ne yàlla xéewal na leen man ko firee jafaaru nisaa yi wax la ñoom insha allah min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina ulaayika lina anama allah alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina yonent yi ak dëggalaa ko ni ak mujtahid ak jaam yàlla yi yi jaamu yàlla bu yiw mooy bépp jaam boo xam ne meloo na melow yàlla takk ci alquran bi lay benn la jaram sax saalihu la ñooñu ñooñu yàlla jox ñoom ngay ñaan aw seen yoon ñu ngi lay ñaanaloo ci baat bi te njub li ngay ñaan ñu ngi lay ñaan yaa ngi ñaan aw yoonu njub njubam ñan njub ñi nga xam ne xéewal la leen mooy yonent yi yonent yi koy am na ci yàlla xéewal waaye am na ci ñoo xam ne yàlla natt na leen natt yu métti su ci doon loola jàmm bi dana ragal su noonu siraata lazina qutiloo siraata lazina xuriqoo siraata lazina jubixoo siraata lazina nusiroo kon nga ragal de te loolu am na ci yoon yu jub am na jaam yoo xam ne dañ leen taalal safara sànni leen ci naka Ibrahim am na jaam yoo xam ne dañ leen a rey ni ci yaa Yaaya am na ñu yoon waaye it am na ñoo xam ne yàlla daf leen a teewal rek loolu lañ ñeme ñun ñëpp moo tax mu ne ah, yoonu ñoo xam ne teewal nañ leen yàlla dafa am taaram ak magam yëpp dina ko wan jaam bi su ko neexee taar bi nag mooy li nga na ne moom la jaam bi ñeme moom la attan mag bi nag kenn ko moo tax tudd ko foofu saar bi la tudd waaye lil maxfuus bi du yoonu ñu mere ña du yoonu ñu bugal ña alayhim ci ñoom ni ci aw yahood wala saalina du jaagen yoonu ña de ni ci nasaara de yàlla na yàlla jubal yoon woo xam ne yàlla ñu yàlla jubal yoonu ña nga xam ne yàlla jubal na leen te xéewal na leen te bum ñu xawale ci yoonu yahood nga xam ne yàlla mere na leen bum ñu xawale ci yoonu nasaara ñi nga xam ne réer nañ ba wala Mariama yàlla te xam ne yàlla rek a yàlla Isaa du yàlla Mariam du yàlla yàlla leen sàkk ñoom ñaar ci jaamam bu jigéen la ci jaamam bu góor la su ko neexee mu xalak leen kenn du ci dara daf leen a bindoon gannaaw bu ñàkkoon te yàlla mën da ñàkk dañ doon lekk ka naan su lekk ka naan fokk nga daan waaye fokk nga tojal loolu ku ne xam ne jëkk ci jëm moo tax be ñoom ñaar jaam lañ yàlla tànn waaye ay jaam rek lañ nag Mariam li foor foor jaamam yàlla la ndax yàlla du am doom te moom am na doom mooy Isa Isa li muy foor foor ci yàlla jaamam yàlla rek la ndax am na yaay te yàlla du mën a am yaay de ndax boo am yaay yaay jàll jëkk bu nekk sa yaay la mag yàlla moom moo fi nekkoon ba fi dara niwut moo fi ne bu lépp jeexee moom rek a mën a doon yàlla mille neuf cent soixante lañ six la ñuy wax ren dat boobu lu mu tekki mooy bi Isa juddoo léegi te adduna am na fi ay junne junne junne at Isa soog a juddu kon ku doon yàlla ba Isa juddoo Isa li muy xool yëpp jaamam yàlla la yonent bi yàlla bu yàlla tànn jaral ko ci adduna ak alaxira waaye foofu rek la yam nag mën